ndeysaan Weuz dafa aj loxo bi jaar ci poxotaan bi def demi flexion doon ko bëtt wër ko ndombe xale bi rëcc ndeysaan mais tamit poids bi ci la bokk ndeysaan mbokk sey naar kenn du yow waaye fi ñu teg baaxut moo tax ma doon doon wax ak ñoom ndeysaan mais négocier nañ ba sonn ndeysaan mais fii doy na waar trop. ñoo ngi ñoom ñaar. ndigal wës jàmbaar. ndigal wës jàmbaar ndeysaan mbokk yi. ndigal wës jàmbaar jàppante na. xoolal ma waa CNG ñooy romb noonu dañu doon ndeysaan. wës jàmbaar ndigal wës jàmbaar ak ndigal jàppante nañu lu déglu wante. ndeysaan mbokk yi ñuy jégalu ci image yi. ñu teg la ndeysaan. le grand ménager ooy ndigal a ngi door ci suuf ndigal a ngi door woosa ngi jàpp woosa ngi defar woosa ngi defar gis nga dugal ne benn uppercut ndigal fayu ndigal door mu sëgg arbitre ngi wax ak ñoom arbitre ngi def lu ñu mën si door ndengeñ bi kan ndigal ndengeñ bokk na ci sonal moom woos jàmbaar waaw waaw ca put ba la jël teg ca bopp ba ba noppi di door ca digal wës jàmbaar ndeysaan xoolal ma waa seen seeg seen sile ñooñu teg fi ba pare di romba ko rombaat rek man daal jommi naa léegi loolu nag sincère na ko gis nga digal la ko digal la ko plaqué waaw ko plaqué wës jàmbaar wës daan na ko la ilaha illallah naan la waaye wës daan wës nee na ko wax kese nga ci amoon oh ma nga eh, wës gaañu na wës wës jàmbaar daan na jàmbaar gaañu na wës jàmbaar daan caatu Daouda Fall Coly Faye ña ngay lewaatoo attention Coly cokkaas na caatu Daouda Fall Coly Faye ndeysaan mbokk yi caatu Daouda Fall ndaanaan la xale la mais dafa mën a bëre fay Faye dafa war a ñëw wane na ci lamb la bokk ndeysaan gis nga Coly ngi dox ci kawam Coly ngi dox ci kawam attention Coly door na Coly dóor na laa ilaaha la Coly dóor na Coly dóor na attention Coly kor na di dóor attention caata ngay liggéey caata ngay jàpp caata ngay jàpp xaadim caata ngay jàpp jege nañu saako yi caat jàpp la bëgg attention caatu Daouda Fall Coly Faye journée Baye Ndiaye borom even borom alburax de ndeysaan mbokk yi ndeysaan attention jege nañu saako yak waaw waaw Coly dugaat na Coly génne na dugaat caat def na demi flexion da koo bëgg a tibb lay laaxee hey Coly plaqué na ko mu bañ Coly plaqué na ko mu bañ hey caat mi am na doole de caat Daouda Fall mi am na doole de. ñu ci grand combat bi dimanche le 12 novembre 2023 journée Baye Ndiaye journée ki nga xamante ne bii moom mooy Baye Ndiaye Albourakh Events mbokk yi arbitre na génn seen diggante diggante Tapha Tine ak ki nga xamante ne bi mooy am sen Eumeu Sène ña ngay foqantey baaram foqantey baaram ndeysaan ñoom ñaar ñëpp. ci Bombardier la ñu mujjee Tapha Tine ci Bombardier la mujjee ma Sène ci Bombardier la mujjee foqante nañuy baaram fippu Tapha Tine Eumeu Sène ndeysaan mbokk yi mi ngi noonu combat bu neexe ngi noonu ndeysaan Baye Omar Diouf sama xarit bi Serigne Omar Diouf borom léppay baax maa ngi lay ziar di la kontaane ndeysaan Serigne Omar Diouf ak am jom bu doonee xale la teel a noppal way juram yàlla na sa jàmm yàgg sama xarit sa yéene ci man xam naa ko yàlla na ko yàlla yeggale sëriñ Omar Diouf borom léppay baax ku mu ñaanal say mbir baax sëriñ Omar Diouf kenn du yow attention Ama Sène Tapha Tine jàppante lan door laa ilaaha illallaah kor Tapha Tine Ama Sène Tapha Tine Ama Sène laa ilaaha illallaah Ama door na ko mu daanu rëpp na day jóg wala du jóg Ama door na ko mu rëpp laa ilaaha illallaah Tapha jógaat na laa ilaaha illallaah na woon naa day am xeex arbitre souffle na arbitre na ardo ak coton ndeysaan mbokk yi Tapha Tine Eumeu Sène stade bu ñëpp ngi jog taxaw bëre wallub teen la ñaari mbër yu dong ci biir géew bi lu mu met Tapha Tine Eumeu Sène arbitre suuf la waat na génn seen diggante ñoom ñaar am Tapha moo ñu won gannaaw Eumeu Sène la ñu jàkkaar lool Serigne Omar Diouf borom léppay baax sama xarit bi ndeysaan maa ngi lay ziar ku baax di la bàyyi xel bu baax a baax jàppal na fu ma mën di nekk sama xel ngi ci yow sama xalaat a ngi ci yow ndeysaan Tapha Tine Eumeu Sène ay waay Xaadim Bamba kooku dafa bokk ci man combat bi dara duma ci rëcc incha bu ngelaw uppee sax ndeysaan dinaa leen ne ngelaw upp na Tapha Tine ak Eumeu Sène ñi ngi lewaatoo attention daje nañu léegi Tapha Tine ak Eumeu Sène Tapha moo ñu woon gannaaw attention Tapha cokaas na Tapha cokaas na léegi foo xantawaat nañuy baaram bu ñu bàyyi wante dañuy doorante wala dañuy tegante bopp jàppante Tapha Tine Eumeu Sène journée Baye Ndiaye al burax events ndeysaan mbokk yi ña ngay lewaatoo ñoom ñaar ku ci nekk dër na ci sa ay tànkam Tapha Tine ak Eumeu Sène Tapha Tine la ñu jàkkaar lool Eumeu moo ñu woon gannaaw wala Eumeu Sène la ñu jàkkaar lool Tapha Tine woon ñu gannaaw mbokk yi Amdi Moustapha ak Tay Singa attention Eumeu dafa mel ni dafa bëgg a dem ama dafa bëgg a jëli su demee lan dafay fekk dafa cookaas na attention hey ama dooraat na laaw gauche droite attention laa ilaaha illallah hey hey hey laa ilaaha door na ama jël na tànk ba ama jël na tànk ba hey dafa tin yëkkati na ko dafa tin day toog ci kaw wala lan lay def dafa tin daan na ama seen dafa tin daan na ama seen dafa tin lan moo xew lan moo xew lan moo xew. la mu daw jàpp xale bi daan ko attention. Coly Faye caatu Daouda Fall. Coly Faye caatu Daouda Fall. attention. laa ilaaha illallaah Coly Faye ci Pape Ndoye la mujjee. caatu Daouda Fall mujjee ci kaw Gourdin. ndeysaan attention. Coly Faye door na hey. Coly Faye door na door ba dal na Coly door na caat bëtt ko caat daan na ko caatu Daouda Fall daan na ko bëtt ko kal ko daan ko laa ilaaha illallaah gàccey dóor gàccey daan fay na ko gàccey dóor gàccey daan fay na ko ay Coly Faye ay Coly Faye fan la jëm. Coly Faye fan la jëm fan la Coly Faye jëm moo ma jaaxal Coly Faye fan la jëm moo ma jaaxal looloo jaaxal ñëpp oh. fu mu ma jaaxal trois défaites défilées mais il n'est pas de mérite daan ko Pape Ndoye daan ko mais Coly lu mën a am champion la Daouda Fall ko Coly Faye la ndaanaan la mais naka laa ma jàppale Coly Faye oh, oh. oh oh lamb gi noonu. dafa ci lamb la bokk dafa bokk. li ko gën a daane force action ci la bokk. mais force action la bokk. ba pare booy dafa dem ba xam ne kii amul lu mën a déranger tey moo tax mu génn na seen diggante ñoom ñaar ndeysaan cay Franc ngay bàkku foofa Franc ngay tuus lu neex ndeysaan mbokk yi mbay guy gi Marley ña ngay lewaatoo di demee wet mbay guy gi moom la ñu jàkkaar lool Marley moo ñu woon gannaaw ndeysaan attention ndeysaan ñoom ñaar foqante nañuy baaram ca kaw attention door attention Marley door na mbay Gouy Gui jàpp lay laaxee lan la Mbaye Gouy Gui Marley attention Mbaye Gouy Gui nga koy ŋoobu ma ngay ŋoobu Mbaye Gouy Gui fam jàpp baax na Mbaye Gouy Gui jàpp na daa bëgg a sigi bu sigee day roof caxabal weeru lay laaxee la gis nga dugal na caxabal mais agul Mbaye Gouy Gui Marley Mbaye Gouy Gui Marley ndeysaan mbokk yi attention Mbaye Gouy Gui jël ni tànk ba. wa daf na demi soo tibb ko lay laaxee la laa mbay guy gi mbay guy gee ngay forcé action mbay guy gi daw na war na ko ndombo war na ko ndombo lan lay def yëkkati na ko ba ca kaw door na ko ci suuf jeex na wala jeexut mbay guy gi marle mbay guy gi marle mbokk yi mbay guy gi marle mbay guy gi yëkkati na ko ba ca kaw dëbbaat na ko tulliwaat na ko ci suuf lan la bëggaat mbay guy geeg marle la ilaha illallah marle jàpp na marle jàpp na mbay guy gi yëkkati na ko ba ca kaw ay la ilaha illallah ey Marley génn na ca Marley génn na ca taxawaat na ñoom ñaar jàkkaarloo waat nañ Mbaye Gouye Gui Marley bëri na lu neex mais Mbaye Gouye Gui amoon nga penalty nee naa la war ndombo penalty la ci làmb soo ko amee da nga koy marqué waroo koo raté ndeysaan Mbaye Gouye Gui Marley san mbokk yi Marley dafa mën a bëree Marley dafa mën a bare ndeysaan xale bu géejawaay bi mais lamb loo gis yaa ko formé lamb lak nee na moo formé moo formé Marley. ma yor mbaru cuure. ndeysaan mais Marley li mu bëree dafa rëy. gisoo ko dama siy génn ba mu pare. lay laaxee xoolal mais lamb. qualité. mais sa ko gën. dégguma loolu. qualité candidat sa ko gën. say lamb lokk gi noonu. xoolal bëre da nga koy dër lay laaxee la laa mbéy guy gi jàpp na. Marley ngay jéem a door ba ngay door door bu sew ca suuf attention laay laaxee la laa laay laaxee la laa mbay guy gi amaat na ko amaat na ko day jeex wala du jeex mbay guy gi amaat na ko mbay guy gi amaat na ko mbay guy gi amaat na ko laay laaxee la laa bii yoon Marley doo ci génn Marley bii yoon doo ci génn est-ce que Marley dana ci génn est-ce que Marley dana ci génn laay laaxee la laa hey mbay guy gi daan na Marley na ko ba bës ko mbay guy gi daan na Marley yëkkati na ñaari loxo ya laay laaxee la oho song na ko suba ndeysaan mbay guy gi jooy na jooy na ndeysaan dafa jógee ci defet ndeysaan mbay guy gi ndaanaan la mbay guy gi daan na marle mbay guy gi daan na marle mbokk yi ndeysaan oho Thank you.